Assalamualaikum. Ñi ngi nuyu ñi ñuy sétane ñep. di doore suñu wax fi ñep doore rek Moy bëss bi bëssu tiss la ci Sénégal Moy euh, ñaar fukki at ci gannaaw lu mat euh, ñetti témèr ci ay bakkan rotna ci lo xamné ci suñu ciosan ak suñu aada dañuy faral di wax ni ndogol yalla la waye ñepp xam ni ak nit mo gën a sabab loolu at wu ne nag mu am ñuko taxawé taxawee nen bu melni at wu ne nag day gëna wañéku té lolu moy andi faté moy andi ñu dem ba faté lo xamné du lu ëpp fàtte la waye célébration yi baxna commémoration baax na waaye am gën ñu fexé ba xam ku def ak li tax mu def ku ci def naka sudul nonu wara mëna uyu ci yoon fi lek lolu amuñu culture bob ci suñu rew lu nu mel du fi joggé bis bu ne nga dégg ab gu suux amoon na daawaati jéeg fële ci Toubacouta Bettenty ay bakkan yu bari rot bis bu nga dee accident circulation boo xam ne lu bëri ci bakkan dina ci rot te boo ba ci biir négligence humaine rek moo ko waral depuis ki bàyyi oto bu daw te warul daw ndax warul mun am visite technique ba ki ko arrêté ci yoon bi gis ni ay papier matul mu bàyyi ko mu dem ba ci chauffeur bi ko dawal ba keneen ak keneen tant que amuñu culture boobu ne dañuy xool responsabilité yi li may wax nag du rek ci mbirum lu jëm ci transport waaye dafa jëm ci bépp fànn mooy ñun sénégalais yi war nañoo xoolaat suñu bopp ci ni ñuy doxalee parce que bëri na lu ñuy dal ci ay immeuble yu daanu ay bakkan yu bëri rot ci te ñëpp gisoon nañ ni immeuble bi ci fële foofu la jëm ñu bàyyee ko noonu moo tax commémoration bi nu mu baax baax baax am na lu ko gën mooy nañu fexe ba xam ku def chaîne bi yëpp nag daa di leen jaarale fi ñu leen war a jaarale kon ñi ci seen bakkan rot te den nañu ci àdduna Cheikh Tidiane ñu fàttali na ko musul am accident bu toll noonu ci dégâts humains yal na yàlla yërëm te jéggal leen yal na yàlla xare leen donte sax jàpp nañ ni li ñu jàng ci diine mooy yenn xeetu faatu yi ku ko ku ko faatu dañoo jàpp ni shahid nga mooy martyr nga cër bi islam jox martyr mooy mën nañ laa suul te duñ la sang sax cër boobu nga am waaye nag lu métti la ci famille la ñu war a waxtaane nag ci ay poñ dinaa ko doore ci assemblée nationale defe naa ci war a waxoon nañ ci yenn ci li am biir assemblée nationale waaye man li ma bëgg a wax rek ci turu conférence des leaders yëpp mooy ndaw yi ñu teewal ñun yeewi askan wi ci assemblée nationale lañu fa def lépp ànd nañ ceeg ñoom à trois cent pour cent ma wat ko parce que dañu ne ci rew mu xawa a doy waar delloo na leçon yu bëri lol critique bi yomb nak dem nañ sax ba li de xam nañ ni leader yi sant ñu len ko mo wax ko fi nak ñun leader yi ñoo sante taxaway bobu boobu ba joko nañu ak ñun suivre nañu li xew ci suba ba guddii ta and nañ ci mu leer nañ te saa su demaatee noonu lañ leen sant moom mooy nañu amaat taxawaay boobu bu yeboon nag Macky Sall créer caserne de gendarmerie ci biir hémicycle bi lan moo waral loolu nag mooy mandat bi leen sénégalais yi jox mooy na assemblée soppiku mooy na assemblée bi nga xam ne mooy voter loi na doon moom ki njëkk di appliquer loi assemblée bi nga xam ne mooy voter loi mom na tout ci appliqué loi assemblée ñaar ñoo ko constitution ak règlement intérieur de l'assemblée constitution dafa wax ni li mooy cëru assemblée nationale Li mooy cëru député bi ni la wara doxale bir assemblée nationale règlement intérieur assemblée nationale ñëw motaliko ne assemblée nationale lenn luñ ci wara doxal la wara doxé ñoom nag ba ñu nekkee fii ba léegi yàlla dafa natt woon ñuy am majorité écrasante ba nga xam ne dañuy ñëw teg seen oom ci réglement intérieur bi di appliquer lu leen neex ku wax ñu ne la minorité ngeen noppi leen loolu moo fi musa ñun ñii xeex nañu assemblée nationale te dañ koy assumer parce que gis nga Sénégal nañu bàyyi yenn wax yi. xeex ci boppam du moy problème bi lan mo andi xeex bi ak lan mo tax nit di xeex yonent yalla ko yoni te kenn gënu ko bëgg jàmm waye bu démé ba génné jaasi xeex amna na lu tax ñuy toog naan kenn warul xeex jàmm jàmm jàmm ñom ño gën yonent dañu gën yonent mi nga xamné ne xeex na te su xeexuloon tay islam do si fi kon nañu bayyi yenn wax yi ay xalé bu ñu tongowee da ngay japp seet ku tooñ nga téelu xamné ko ya tooñ boko mënul da nga nopi ci wax ji waye non déception ñun di taxuloon yóbbu leen assemblée bu dee ñoom dañoo ñëw assemblée nationale bëgg imposer lu yoon lan la député euh, opposition war def sol sen costume cravate croiser les bras ne suñu yoon ne aussi ëllëg bu ñu ñëwee bëgg voté benn loi pour ci góor jigen wala dañuy wala dañuy wote loi pour yokku euh, njëgu ceeb wala njëgu diwlin wala leen ak leen opposition bi neen la wara démé ñom ñoom ñu ne dañuy teggi loi daaj koy def par force lan la opposition bi war def li ñu def barki démb la ñu war a defaat moo tax ma ne leen nga ngàcce gaalaama siggil ngeen ñu parce que man nekk naa assemblée cinq ans minorité lañ fa di cee xam ne li may wax bis bu ne ñu jalgati yoon te mënoo ci dara loolu nag moo jeex takk nag ndax nag ñoo leen ëpp doole assemblée de majorité sax amatuñ ko ndax quatre vingt bi nee na léegi non inscrit la ëpp ñu ñu lim. gënuñoo nekk ndaw ëpp ñuy kàttan duñu ñàkk fulla nag ba ñu jaay ñu lenn li ci biir assemblée loolu jeex na assemblée li tax nag li ñu def am solo lan moo ci tegu la ca la tepp ci ñaari fan yooyu yëpp dañoo dellu si négocier lépp dañ koo waxtaane lépp dañ koo waxtaane waxtaane nañu commission yi nañ ko war a tërale kan mooy jël ban nangam bi ñu ñëwee lan la ñu waxoon ci commission yi ñoom ñooy tànn lu leen neex opposition doog a tànn gars yi neen du fi amee du fi amee dañ koy waxtaan ba déggoo assemblée boo xam ne ëppoo fa doole gestion paritaire la war a doon opposition bi li mu wax rek mooy nañu toog waxtaane mbir yi fii kenn bëggu fi lu yàqal Sénégal kenn du fi def loo xam ne da nga koy bloqué pour bloquer rek pour le plaisir déedéet lu ñu andi lu baax ñu wote ko lu ñu andi lu baaxul ñu ne leen du fi amee loolu mooy assemblée nationale lol la Sénégalais ci ñun députés de l'opposition deux non trois non inscrits muy 83 ñom ñom est-ce que yoon la ñu tok yoon ne suñuy voter ay couleurs pour candidat bu nekk ñom ñu lol du fa ñoo violé règlement intérieur ngeen suñuy député loxo ñu def neex Sénégal bis bu que ñu jaarat non fofu ma wax ko mu leer bu yeboo nag na préparer andi caserne gendarmerie biir assemblée nationale may fu parce que man su may wax ak Macky Sall constitutionnel bi mu am Ismaïla Madior Fall commencé ko toggal naan ko da ngay suspendre assemblée nationale article 52 de la constitution loolu lay rumbanaat fi mu toll nii waxaat na télévision tugal président Tunisie fof télévision bobu la ko demoon waxi dellu ci suspendre toutes les institutions à Tunisie Macky Sall barki dem bi mu Nations Unies télé bobu la dem waxat ko dina xamni Sénégal du Tunisie Sénégalais ñoo bëggoon assemblée nationale wuyoo assemblée nationale motax ñu né dañuy dolel opposition mom néna ses pouvoirs ne dépendent pas de l'assemblée les pouvoirs de l'assemblée ne dépendent pas de lui lool moy yoon suñu né séparation et équilibre des pouvoirs moi moom ci bopom, ay pouvoir assemblée dépendrul ci moom moom waroon na am kersa di wax ci assemblée parce que mingi viole violer séparation des pouvoirs mais comme c'est un homme volontairement violent dans tout ce qu'il fait moom jàpp na ni Sénégal da donne donn ci ay wajurum xamna. ñun ñi ñep ay ay ay assujettis lañ Motax mu jàpp ni moom na suspendre assemblée nationale bi Dadi am tous les pouvoirs de gouverner par ordonnance loolu la gëm makisal Macky Sall Ismaïla Madior Fall mu teg fee nga xam ne musiba bu mu dugg nag moo ko koy dugal loolu la ko gëmloo fi mu toll nii waaye ba ñu yegg ca waaye teel naa teel nañ ko dànqaafu te wax nañoo ak Sénégalais yi moom munul fecci li Sénégalais yi fas Sénégalais yi ñoo bëggoon assemblée mel nii ñoo bëggoon opposition bi am fa doole ba lu fay ñëw dinañ ko mën a càmbar te noonu lañ koy càmbaree nag te fan yi di ñëw. assemblée nationale dina neex de li muy tit liko titel tiital ba muy bax baxi dina am assemblée nationale dina don un lieu de débat bo xamné mbiri dotul ñew rek député nelaw ba bañu ba ñu ne heure vote mu jog né voté da déedéet luñu andit nañ ko càmbar parce que loolu la askan wi nam ci ñun waye duñu yem ci loolu ñun dañuy yobbu dinañu proposer ay loi tek ko sur la table loi yu dëgër nak loi yu lèr nañ yo xamné Sénégal da koo soxla dinañu déposé pour ñu taxawal ay commission d'enquête parlementaire ci loubal guiné ne ci réew mi loolu moo ko tiital nelawatul lekatul bo xolé kanam bi sax danga ko yërëm dinañu càmbar budget bi nga xamné mom la wara a ci table assemblée nationale ba mu led li li moy intérêt Sénégal lu ko may ñu délo ko ko en seconde lecture loolu tax muy annoncer la couleur nan si on bloque moi je prendrai mes dispositions yoy ay waxu daanu saret la kon ñu ngi rafetlu suñu taxawaayu député bu ñu déglu kenn ci ay donneurs de leçon assemblée nationale règlement intérieur la kan moo mun a ne Benno Bokk Yaakaar violewul règlement intérieur ni mu falee président amul ku ko ñemee wax ci Sénégal ba pare ñu bëgg ne gars yi nañu toog jàpp seen njàmbur croiser les loolu jeex na ci Sénégal wax nañu gouvernement bu bees 2019 dama taxaw ci assemblée nationale vidéo yaa ngi ba légui sénégalais ñumté sommes dé ndax jox Macky deuxième mandat musiba la ci Sénégal mané won sénégalais nak at di ñew di ngén souffrir du yéné dé yalla xamné ni Sénégal rek lañu Sénégal ci suñu xol bi mais xam.

kon su ma taxawaatee fii ñu ne waa ji at genn wàll ko dese may leen at genn wàll googu Sénégal dinañu souffrir encore ngeen war ma gëm parce que dama ko teg fu leer nee na gouvernement la teg gouvernement de combat moom dafa yéex a yeew combat bi commencé na bu yàgg moom daan nañ ko ba sëlëm ko muy doog a yeewu naan gouvernement de combat combat bi doorul tey.

Ouais, gouvernement de combat par rapport à quoi et par rapport à qui est-ce que combat pour régler problème sénégalais là la déedéet dama le gouvernement bi kan moo ko jiite Amadou Ba Amadou Ba a ministère de l'économie et des finances pendant sept ans tey économie Sénégal petits souffles. ba ci a ana entreprise bu dox ana secteur économique bu dox exonération fiscale yu ñu jox entreprise étrangère yi te du yoon wax assemblée nationale xaalis réew mi ñu sàcc suuf si ñuy dagg aéroport ak feneen ak feneen lépp sous le magistère de Amadou Bala. la ku télé pendant sept ans mënoo taxawal économie ñu ne la un an et demi jox nañ la premier ministre tey problème Sénégal jeex Sénégal nag boo fi amee say milliards yaa xam foo ko jëlee ndax man de inspecteur des impôts la aw may million waaye boo fi amee say milliards 2014 déjà neewoon nañu 800 millions la def ci image am budget image léegi nag xam ay milliards lay doon boo fi amee say milliards lu ñu bindal l'homme de la situation nangam nangam mu mel <laughs> ministre de l'économie et des finances te dara doxul ci sénégalais man sénégalais lu ni tarfata ay changé depuis le début xam nga fu mu musul xam lan priorité Sénégal lu neex tubaab yi la doon xool moo tax tubaab yi ne ko defal ay infrastructure parce que suñuy entreprise soo defee infrastructure ci la ñuy mën a am marché sa dëkk tabaxal ay stade tabaxal ay arène tabaxal ay autoroute loolu lépp baax na de waaye lan mooy priorité Sénégal ak lan lañ ci def ana mbayu Sénégal mbay dañu ne woon 2017 la ñuy am autosuffisance en riz tey la ñu doon importer ci ceeb lu ko raw la ñuy importé ana mbayu Sénégal mbay réew mu mënul téye mbayam réew mom mënul fexé ba défol wayé bu aduna bi tisoolee yow nga soj parce que tay suy dem ba Ukraine di yelwaan ay blé fa suñu souf si nga xamné yalla jox nañu ko kenn xamul nu mu toll lan lañ ci def ba tay suñu mbay mënul dundal Sénégal ana industrie Sénégal zéro tissu industriel réew mu amul industrie pour transformer li ngay bay mëno développer mëno créer emploi munoo am résilience mooy su amee problème ci àdduna bi nga mun koo dëkku ana loolu yooyu mooy priorité Sénégal ana napp gi jaay na géej gi ana càmm gi zéro nga foog ne di nga développé réew ci anam googu ñu naan sa addi nañu premier ministre dàq nañu premier ministre sénégalais ku gëm ni loolu mooy soppi mooy tax ndaw ñi am liggéey moo tax pañ mi baax moo tax euh, euh, économie bi développé nax nga sa bopp dara du dox. ñeneen ñi ci nekk ministre yëpp nekkuñu foon ministre suñu scandale pétrole ci ministre yooyu la jaar suñu scandale Prodac ci ministre yooyu la suñu scandale bi ñuy bëgg a jaay suufu suufu Batrin beeg ñoom seen ci ministre yooyu la jaar suñ ci taxul woon tapé sur la table tey jaay nañ ko ñi am seetlu yëpp jàpp gis nañ ni dénominateur commun bi ñu am mooy kan moo dàq saaga Ousmane Sonko ci ñoom léegi ku bëgg a doon ministre. wala nga am ay milliards saagal Ousmane Sonko Macky fi mu fi mu fi mu yóbbu Sénégal fi mu wàcce Sénégal dafa sax indécent ci makki Sall rek la Sénégal eggee fi waxu waaso waxu xeet waxu région saaga subaak ngoon suñu waxee ñu xale yi saaga ci ci Facebook bi déedéet xale yi dañuy développé ay anticorps par rapport ak ay mag yu leen di saaga tous les jours man de kenn musuma dégg ma saaga kenn gisuma gis gi ma ànd ak saagakat Macky Sall ngay gis ku saaga su ba ngoon jot mu woo ko pare jox ko xaalis photo ak moom jabaram toog ñu photo foog nga ni Senghor dina doon wàcce république à ce niveau foog nga ni Abdou Diouf dina doon wàcce république à ce niveau foog nga ni Abdoulaye Wade dina doon wàcce république à ce niveau tey saagakat yi ñooy ñooy doxantu biir pare nit ñi suñu bëggee wax nañu wax loolu moo gën waaye suñu jógee waaw goney Pastef yi nangam nangam goney Pastef yi anticorps la mooy yaram bu ko feebar duggee dafa am loo xam da koy développer ci pour faire des choses. Si vous avez passé opposition jóguñu saaga kenn dañuy tontu ñi nga xam ce ci loolu lañu fait politique tam fait addition de zéro la ñi des jël Ce ne ministre c'est pas eux qui vont faire des combats politiques kan fait ci gagné fi mu ay liste remplaçant ñoo leen di duma ban poids politique la ñu nañ ma wax jël leen kenn kenn ministre yeeg premier ministre yëpp door nañ leen élection locale duma leen élection législative kon du ci administrativement du ci politiquement du fenn fo mëna a du ci prise en charge des préoccupations des Sénégalais du fenn fo mëna a nattee ñi gouvernement de combat la mu dess nak kon ban combat combat ak opposition c'est pas un un escadron de bras cassés et de canards boiteux qui va combattre l'opposition kenn ci ñoom gagné au bureau de vote Nous ñu pas combattre moo wax vrai gouvernement de combat Macky Sall xam ngeen général Moussa Fall commissaire Yag. une partie de la justice la et une partie de la presse la lii gouvernement de combat Macky Sall ah. du général Moussa Fall ak yàgg gëmloo ko ni jënd na lu doy ci ngànnaay ci grenade lacrymogène ak leneen ak leneen ba ku yëngatuñu duma la moo tax lu xew ci réew mi ñu génne char de combat fu ne pour dox ci ci ci ci xelu seet xale yi ba dootuñu ñeme mais dañoo xamul lu xew laajal Ben Ali laajal Moubarak laajal président Soudan gis nga un peuple qui dit non gisuma gendarmerie wala police bu koy téye. yooyu ay waxu caaxaan la ñaareel bi mooy une partie de la justice sénégalaise est-ce que tey xoolal classe politique bi suñu naa dem élection 2024 nee nañu Khalifa Sall du doon candidat nee nañ Karim Wade du doon candidat léegi ñu ngi ruma daal naan Barthélémy Dias du doon candidat Déthié mi am na benn sursis man moom ma teel leen ko wax gannaaw yàlla amul luy dund lu mën a tere ne candidat loolu moom du lu ñuy wax

Moi, moi, instrument pour la liquidation politique des adversaires de Macky Sall justice nous Nous parce que ñun ñëpp sénégalais lañu te kenn ëppalewul la presse une bonne partie de la presse bon. problème la Sénégal barki boy xol presse su Sénégal nga xol presse Mali wala presse Burkina da ngay rus c'est devenu un problème la ko andi nag yéen journalistes yi taxul ñen ñu wax de yéen mom ñoo bokk coono ñoy naanandoo suñu lacrymogène bu ñuy tourné ñooy fanaanandoo ci àll bi seen patron yi dem mbeuk fele ñu jox len ay milliards duñ len ci jox ñom lañuy waxal ay dor kat ay mbeuk kat nguur gu ñew ñu naxante naxanteeg moom laxas ci mom ñooñu ñoo tax ñuy wax. dafa am jamono nit ñi dañoo gëmoon ni le la la quatrième le quatrième pouvoir c'est la presse dañ ko daan dégg même dans les livres de livre de droit constitutionnel dañ ko doon wax moo tax ñëpp dawoon dem uti organe de presse ne su ma ko amee am naa moyen de presse de pression am na wéykat bu ne woon euh, nu mu ko tuddee ouragan ëppal asamaan euh, jant leer ma jànnoog satellite satellite one ma feneen feneen dina liggey ba am satellite nangam nangam des ngént gu yàgg la woon su la ñu ni ku am sa groupe de presse soxlo parti politique parti politique yi de la république de la de pression et de chantage sur les gens et ça marche avec les petits présidents amul benn personnalité nga ko nañu bind lu baax ci man ak bu ñu nañu bind lu bon ci ñële mais loolu dafa jeex tàkk la jeex dañoo nekk jamono joo xam ni presse sax léegi mu dépassé parce que yéen ñëpp journalistes yi wóor na ku nekk am nga sa benn blog sa benn page Facebook booy def sa benn site internet ku yaakaar ni yor nga groupe de presse loo neex nga wax ci nit ñi te li gën a garaaw mooy kenn du la tudd yow. mën nga taxaw wax la neex ci nit ñi ku la tudd nga mel ni mbott bu wan bu wan caméra loolu au nom de quoi au nom de quoi invité nit ci plateau mel ni ku ku lu ne nga yàq ko ko mu dóor la benn nga ngay bëgg a xatraay au nom de quoi cette dictature ne marchera pas en tout cas moi ça ne marchera pas avec moi je respecte chacun et j'exige le même respect de chacun lan lañu fi bindalul ci ay ngeen wax ngeen baal ma ci wax ji may ay fenu nen l'observateur en pleine campagne Sonko a reçu 195 millions de tuloy ooy est-ce que amna lu gëna a lool loolu kan moo ci wax ngeen foo lool dina continuer non dans ce pays parce que yorna sama organe de presse luma neex ma bind ci nit do xol ni père de famille la do xol ni dafa am njaboot ci politique ay milliers de personnes top ko ñu ku def nga am preuve ni def na nga wax mais sos suba ngoon ak bëccëg sénégalais dañuy tok di sétane sen télé nit di wax ñu naan ki mo mëna wax lu dul non parce que nit ñi légui dañu yew motax tax li Barthélemy def and na ci man rew mi il va falloir crever l'abcès te am na lo xam ñu ko nangu li nak moy gouvernement de combat Macky Sall gouvernement combat Macky Sall c'est pas ces canards boiteux là de politiquement ku ci dem terrain bi né damay quartier la bëgg so démé ñu duma la kan mo ci gagner wax len ma Nous avons ñu élection locale Dakar est-ce que a 5000 voix Nous ñu yeneen dëkk yi fu nous la gagner, un gouvernement de combat contre qui donc nous faisons ni lii lépp la chose, wax na le man askan wi askan wi protéger les mandats qu'ils ont puisque institution yi mënatuñ koo def assemblée nationale lim fi nekkee depuis des années gis nañ ko man bi ñuy lewee sama immunité parlementaire ñëpp xam nañ ni jaarul yoon ñëpp xam nañ ko un député qui est en cours en session loi li mu wax dafa leer mënatuñ ko poursuivre nous dul assemblée nationale levé na immunité ni xew acte de poursuite parce que poursuite il commencer commencé avec réquisitoire procureur mi dit quand le jugement sera définitif C'est la poursuite donc en appel acte de poursuite la preuve le le procureur est venu de faire réquisition d'aller demander 5 ans Donc, acte de poursuite Quand lan assemblée nationale nest ci tellement 17 di pour que un député en cours de session ñu mun euh, condamné sans pourtant que l'assemblée nationale n'ait levé son son immunité motax mané affaire bi dotul affaire au assemblée nationale donte suñu député dinañu déposer liñu wara déposer semaine bi avocat yi dinañ def pourvoi en cassation mais dotul affaire assemblée nationale lama waxone bama ci tollé man mois de février daw dama leen ne lii du mbirum justice mbirum jaay doole la ak mbirum politique donc politiquement lañ koy répondre askan bi mo wara protéger ses mandats parce que dañoo jël Barthélemy né ki ab criminel la askan wi leen d' accord criminel boobu moo ñu doy pour jiite la capitale du Sénégal ñu jox ko mandat askan wi dellu siwaat criminel boobu moo ñu doy pour ñu jox ko mandat mu dem assemblée nationale kon askan wi weddi na loolu loolu doy na ci weddi moo tax askan wi moo war a protéger ses mandats parce que fi ñu bëgg a jëm mooy foqati son mandat de député ak ak xool ndax mën nañu foqati son mandat de de ville de Dakar loolu duñ ko nangu li may daane daanelee daal pour bañ a guddal yow askan wi laay waxal rawatina yéen ndaw ñi rawatina yéen ndaw ñi bu leen kenn ëlëmal ak wax yu amul solo ay def na gouvernement andi na premier ministre dàq na premier ministre dugg na fii génn na fii gouvernement bi dama cee cof rek danañ ci wax bu jotee parce que xam nañ leen de dañ ci wax bu jotee te nag combat bi mu bëgg dina am ma nga commencé assemblée nationale. limu ragal dina am ministre yëpp ñoo ngi leen di xaar assemblée nationale ben ben xam nga ñun ay ben ben lañ fa newoon Déthié Sonko dem boj te daan daan nañ leen duma duma yu mit bi pa nak dina saf-saf assemblée nationale pour projet de loi bu ñew loi de finance bi yeen ñep di ngeen gis ren plénière yi nu muy démé dina neex de lool nak mo téré nelaw Macky Sall waye limay wax ndawu Sénégal lii ñuy def ni yépp cosmétique la ak taal ay contre-feu pour réeral leen xam ngeen lan laa bëgg ngeen def focus li ma bëgg ngeen jàpp ko moo tax man débat troisième mandat ma ci dugg xam ngeen li ma bëgg ngeen jàpp ko Macky Sall 2024 février 2024 il sera plus président du Sénégal na fi jóge abal ñu réew mi na am ngor gu doy nag ndax askan wi def desew ko dara

nekk ci plateau yi di ko waxal lu ko neex ñu nag ñoom xamante nañu te su dul woon alkaati gu dox suñu diggante ba ci keroog assemblée nationale bu dul woon alkaati gu dox suñu diggante ñoom xam nañ du demee nii noonu la demee nag ci lépp lu ñuy def xam nañ ni ñoo leen ëpp ci réew mi ñoo leen ëpp ndaw yu ànd ak ñun ñoo leen ëpp jëpp ci ñu ànd ak ñun ci diaspora bi amul fenn fooy natt foo xam ne tey Macky Sall ëppale nañ ci réew mi lu dul nag yaakaar ci Moussa yàgg ak